yu ñaan yàlla yàlla nañu yàlla nangul suñu koor ak suñu jaamu yàlla yépp yàlla na ko yàlla nangul delsiwaat nañu itam ci suñu tafsir bu ñu baaxoo def ci waxtu wi ki leen koy defal mooy seen mbokk seen xarit seen taalibe Omar jàlloo fii ci Ankapa ñu ngi ci suuratul baqara ba léegi aay bi borom bi subhanahu wa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشهرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله يلا خبير أجي دنجكم بلا بما تعملون تلين دي جف عالم باطنه كظاهره yàlla ni mu xamee euh, secret yi ci li nëbbu noonu la xamee li feeñ yàlla ne wala junaaha déet bakkaar aleykum ci yéen fii ma arrabtum ci li ngeen gaaral waxoon naa léegi ndaw soo xam ne dafay tënj yàlla ne wala junaaha déet bakkaar aleykum ci yéen fii ma arrabtum ci li ngeen di gaaral bihi ci loolu min xitbati nisaa ci labat ak jigéen koo nekk koo xam ne mu ngi ci addam dégg koo xam ne dafa dafay tënj nga ñëw foofu jaale ko ba pare ah wax ko ne ah muña rek yàlla baax na yàlla baax na yow moom jigéen ju baax nga ku la am jabar ko <laughs> ku la am am jabar ju bax ayu, ayu wala inshallah dana ñu ngi sewet lo mankalé rek eh, yonil xalé inshallah allah ci taxaw nga dem loolu day tax ndaw si bayyi la xel garal ay wax garal ay wax ba mu comprendre nee ñu bob ayu wala juna fii ma aradtum min xitbati nisa bàkkaar amul ci nga gaaral ko ay wax soo soxlaa saabu na nga yónnee ci bitig ba walla demal ci diw mu jox la walla nga jékki-jékki di yónnee ay suukar walla ay saabu a léegi-léegi nga taxañ benn envol def ci ay ki vingt cinq mille jox ko te waxoo dara loolu dara ay li bon kay incha allah soo génnee incha allah danaa la takk ah loolu moom su génnee doo ko takk sari déedéet déedéet sari ko nangu sari su ko déggee doo ko takk parce que yaa ngi koy doxaan yaa ngi koy labat ci eddam ku nekk ci edd kenn du ko labat mun nga def nag manifesté wu manifesté wu ba ndaw si xam ne sa doful dina jàpp soo manifesté wu dina xam ne kii xelam a ngi ci yow jigéen ñi ñoo gën a mus soo ñëwee ni ni nga koy jaax ni ngay jaaxalee rek gaa yi di jë indi ay 1000 francs sama classe gi ñëw indi ay 1000 francs ak i 500 nga ñëw indi enveloppe du de vingt cinq mille joxe ko doo politicien doo dara am moom ñoom ñoom yooyu loolu noonu noonu la ñu doxaane nit ñi mooy ah waaye yow doo politicien doo dara nitu kii nitu normal nga nga ñëw rek joxe enveloppe cinquante mille wala cent mille jox ko ndaw si ubbi ko xam ne kii bunaam moo ma ko jox waaw bunaam day bàyyi xel enveloppe bi lu muy dox muy dox waaw fekk nag waxoo ko <laughs> dégg nga wax ji ay waa li bon rek nga wax ko clairement dinaa la takk waaw waaw loolu kenn du ko def kenn du ko def ku nekk ah? ah waaw dañuy bañ nga tudd ko nga xam nañ ni mu ngi si sa xel yàlla na bu ko tudd de bu ko tudd de soo dof dof la ba tudd ko ñàkk nga parce que digg nga ko yàlla ne ah min xidbati nikaay aw ak nantum wala ngeen nëbb ko ndoxaan gi doxaan gi ngeen nëbb ko fi anfusikum ci seen bopp ngeen bañ ko feeñal allah yàlla xam na sax yàlla deg nga wax ji allah yàlla xam na ah annakum yen sa tazkurunahunna da ngeen leen ko wax yag yag de ngeen leen ko wax li ngay garal ni yàlla ne xam ne sax de nga ko wax ndaw si jamono ji mom bu ko ko wax dégg nga wax ji walakin li fi ne laa tuwaaciduhunna sirran bu leen leen ko déey nekk ah man daal wax dëgg yàlla bëgg naa daal soo génnee ma jël la nga déey ko ndaw si yàlla neen bi bu leen def loolu bu leen def loolu illa an taqulu ndare ngeen wax qawlan wax joo xam ne maarufan bu jëkk dégg boo xam ne bu jekk ci seri yow de moom wax dëgg yàlla kenn yéenewu la ko jigéen ju baax nga jigéen joo xam ne ku la ah, am am na jabar walla góor gu am jabar ju mel ne yow wax dëgg wax dëgg yàlla dafay sant ay ay gaar pour ndaw si waaw jëli la rek waaw jëli la rek soo amee loo manqué la nga yónnee kër ga waaye wala taazimu bu leen dogu mukk oqdata nikaa pas-pasu sëy ne soo génnee danaa la danaa la danaa danaa la takk déedéet bu leen wax loolu xataa yabluga kitaabu ba téere bi mooy téere bi nga bi ngeen bindoon téere keroog bi waa ji téere bi ngeen génnoon génn na àddina jour tel ndaw si war na génn jour tel ba téere bi àgg ci àppam dégg nga xataa isa balaqal kitaabu ajalahu ba téere bi àgg ci appam mooy mu war a épuisé su épuisé ba pare nag ngeen soogo hmm, feeñal seeni mbëggeel wa mu xam leen an allah yàlla ya mu aji xam la maa fi am anfusikum li nekk ci seen dënn yi minal azmi ci dogu dëng wa xayri ak lu du lool loo xalaat rek yàlla xam na dégg yàlla ne faxasaru na ngeen ko moytundiku an yu aqibukum balaa yàlla mbugal leen isa azamtum su ngeen demee ba doguti takk ci ni ki ngeen ki nga dogu takk ko mu ngi ci boomu jaambur ma mu ngi ci yedd wa alamu na ngeen xam anna allah yàlla xafurun jéggalaakoon la liman yaxsarahu koo xam ne moytu na ko xalimun aji deneerlu lo yàlla ne laa junaax déet bakkaar aleykum ci yéen beneen atte laa junaax déet bakkaar aleykum di waar ci yéen ida talaqtum ndéem fase ngeen an nisaa jigéen maalab tamassuhunna te àndu leen laalu leen la jigéen goo xam ne den ko fase te laaloo ko mooy àndoog moom aw tafriduhunna aw tafridu lahunna walla ngeen farataal leen faridatan mooy can dégg wa matti'uhunna na ngeen leen xéew eh, jox xéewal ma na leen jox dara alal muusi ci ku am mal alxaniyu minkum ci yéen ku am alal ku omal qadruhu na joxe ni mu wa alal muqtari muqtiri koo xam amul dara koo xam dafa gat, moom itam qadruhu kemam ni mu toll lay joxe masalan tàkk na nga ndaw si te àndu rek nga ko te tuddaloon nga ko da nga ko jox deux cent mille hmm? di nga ko cane deux cent mille waxoon nga ko da ko jox deux cent mille ñu takk nag soo ko fasee te ànduleen da nga koy jox cent mille yi dégg da nga koy jox cent mille yi nisful mahari genn wàll can nga koy jox daa àndu leen wax dëgg yàlla war nga ko war nga ko neexal nag parce que tas nga yaakaaram hmm? yóbbe nga ko xalaat ah wax dëgg yàlla bëggoon naa euh, li gën a woon nga wax wax ju rafet ba pare ma ne ko am maa la jox lii soo ko mënee jox lépp sax moo gën soo ko mënula nga wàññi ko xaaj ko jox ko xaaj bi ma ne ko wax dëgg yàlla gën waaye luy la yàlla dogal ak yow nga jégal ma ak yow nga jox ko dégg hmm? ki nga xam ne dafa am alal ah millionnaire nga waaye jox ko dix millions wala sept million nga ne ko wax dëgg yàlla jàppal fi waaye bu géewuma ko woon ni waa joxe cinq vingt cinq mille te yow nga nga ay millionnaire déedéet na joxe ni nga tolloo fekkee ne eh, vingt cinq laa mënoon joxe ñu ne bu joxe la douze mille cinq cent bokk parce que foofu laa toll yow mi toll ci euh, nu mu million wal millions wala cinq millions joxe loolu bul naa yow parce que su ñu déggee ni vingt cinq mille nga ko jox wala cinquante mille sa der yàqu yoo xam ne ne yow yow ah. bàyyiwul dara loolu nag mu ne mataa an xéewal la bil maaruf ci njëkk ci sharia xaqan loolu nag yey na alal muhsinin ñi rafetal jëf ki nga xam ne kuy rafetal jëf mooy mooy def doon yey na ci ñooñ wa in dalaktumuhunna su ngeen leen fase min qabli an tamassuhunna jékki ngeen di ànd ak ñoom waqat faratum te diggée ngi woon ngeen farataal ngeen lahunna ñeel leen faridatan can fa nisfu ma farattum na ngeen leen jox genn wàll li ngeen leen tuddaloon ci can li ma waxoon léegi illa an yaafuuna ndëre ñoom jigéen ñi nag ñu ne ma kon fase na ma rek baal naa ko ma baal naa ko aw yaafu walla daal di jéggale allazi ki nga xam ne bi yadihi ci loxoom uqdata nikaa pas pas pas pas sëy bi ci moom la moom mooy azawju dégg moom itam mu ne ponk maa ko takkoon te mu nangu woon ci njëkk ak teraanga ma waxoon ko danaa ko jox cinq cent mille fase naa ko te ànduñu jox naa ko cinq euh, cent mille yëpp ku góor ki mën na ko ku jigéen itam mën na bale du noonu comme dara doxul ci suñ diggante baal naa ko loolu yëpp mën na ne yàlla ne ànd ak loolu yëpp nag wa an taafu ngeen jéggale bu ku góor ki wala ku jigen ki anta afu ngeen jéggale aqrab mo gën li taqwa ragal yalla nak wala tansawul fadla bainakum bu fatte ngeenel gudu doxon sen digenti hmm bi ngay labat rom nga keur buntu keur yu bari du non nga ñew ci mom moom itam bi muy accepté mun na am dàq na ñu bare fàttalikul keroog bi nga fa demee boisson bi ñu doon xelli ginaar bi ñu la toggaloon reer moo indi ay invité ay moromam du noonu génneel gi doxoon fàttalikul bi nga ko waxee sa nijaay bi nga ko waxee sa pap mu dem seeti foofu seetali la ay waajuram ñu xel xellil nañ leen foofu ji xelil nañ fa boisson mën na am reer ngeen fa waxtaan ngeen fa waxtaanu ngor du noonu laa sawul fadla bàyyi na ko ngeeneel gi doxoon seen diggante seen ñeen ñaar ak ñeñeen yónni woon bu leen ko fàtte bu leen ko sànni fale na ngeen ko conserver dégg nga wax ji yàlla dafa bëgg lu jekk yàlla dafa bëgg njëkk inna allah yàlla ah basiirun aji aji gis la bi ma taamaluuna li ngeen di jëf yu jaasikum bii dina leen ko fay wax jooju jeex yàlla ne xaafizu ala salawaati na ngeen wattu jullo juróom julli yi bi aada ihaa ci joxe ko fi awqaatihaa ci waxtu yo xaafizu ala salawaati na ngeen wattu seen waxtu yu juróom yi ngeen di ko joxe ci waxtu ya bul bàyyi ba waxtu yi paase ngay fay wasalaatul wusta ak julli gu diggu diggu doomu gi ba tey salaatul wusta wax nañu ne mooy salaatul asri mooy takkusaan awi subahi walla julli suba awi zuhur am na ñu wax ne julli tisbaar aw xayriha walla lu dul lool wax nañ ko aqwaalun ay wax yu bari rot na ci wa afradaha wéetal nañ ko bi zikri e, fadliha ngir tudd ngéneelu dégg wa quumu na ngeen taxaw ci julli lillahi ñeel yàlla qaanitiina ngeen way nekk way topp borom bi subhanahu wa taala من كل قنوت في القرآن فهو ضاعة رواه أحمد وغيره زيد بن أرقم واحنا في حديث من كنا نتكلم في الصلاة نكون نندي وقتان في الصلاة في جولي دي وقت جولي حتى نزال با واتنا آي بي فأمرنا نيو ديغل نيو بي سكوتي تي نوبي ونهينا نيو تيرل نيو ان الكلام تي واخ رواه الشيخان يالا نفا ان خفتم سونغي راغالي من عدوين aw sayrin aw sabain su ngeen demee ba wóoluwu leen wóolutu leen seeni noon walla waame xam nga waame ndox mu bari waame xam naa di koy dem ay Fuuta yooyu ci ngay xam walla taw bu bari inondation aw sabain walla fii kat dafa am ay ay gaynde ak ay segg fa rijaalan na ngeen julli rijaalan ngeen di dox aw rukbaanan walla ngeen julli ci kaw fas yi ci kaw gëlëm yi dégg nga fa isa amintum su ngeen demee nag bu wóolu ba wóolu fazkurullaha na ngeen julli tudd yàlla mu ngay julli kama allamakum ni mu leen xamale xamale maalam takunu nekku leen woon taalamu di ko xam mooy julli normal waaw su ngeen ci bërëb boo xam ne amul sécurité suwaat seeni noon yi ngeen fa ragal walla bërëb bi kat dafa am ay gaynde ak segg walla dafa am ba inondation boo xam ne mun ngeen sëgg ah, waame bi fekk leen foofu bu boobaa na ngeen jullee ni ngeen mëne su fekkee ne da ngeen di dox ngeen julli di dox su fekkee ne da ngeen nekk ci kaw fas yi walla ci kaw gëlëm yi na ngeen julli ci kaw gëlëm yi su ngeen demee nag boo wóolu ci loolu yépp sécurité am jàmm am na ngeen julli normal wax jooju jeex yàlla ne wallazina gaa yi nga xam ne faw yutawaffawna ñu ngi dee minkum ci yéen wa yazaruun ñuy bàyyi azwaajan ay soxna fa fal yuusu nañu dénkaane wasiyatan dénkaane wasiyatan ak dénkaane li azwaajihim ñeel seen soxna yooyu loolu nag aaya bi bi muy wàcc boobu aaya miiraas ñëwgul dëng loolu mataa an yóbbal la xéewal la min an nafiqati wal kiswati ila tamaamil xawli ba at bi mot ngayri ixraajin ngeen bañ leen génne ci seen néeg ñi fa ida fa in xaraj na suñu génnee bi am fa na ñu génne seen bopp nag falaa junaa déet bakkaar aleykum ci yéen yéen kilifa yi fii ma faal na li ñuy def fi am fa ci seen bopp min min maarufin ci njëkk ci sharia ka tazayuni wa tarkil ihdaadi wa qati nafqati anha dégg nga bu booba nag ndeme ba seen <coughs> idda jeex ah mun nañu nag takk seen takkaay ñu bàyyi tënj bi yenn góor ñi itam ngeen dàgg dépense bi ngeen doon dépensé ci ñoom dégg wallaahu yàlla azizun aji not la fi mulkihi ci nguuram waaye xakimun aji teral attee fi mu yàlla tëdd yàlla ne beneen atte walil mutallaqaati ñeel na ñi ñi fase ñi mataa un xéewal man yóbbal bil maaruf ci njëkk loolu xaqan yey na alal muttaqina ci way ragal yàlla yi jigéen yu ñu fase nga jox ko dara xamu jigéen bi ñu fase te idda gam idda motagul kooku kii ko fase moo ko war a dundal ba idda mot fekk idda motagul sa jabar la su dee danga koy donn soo dee dalay tënji dalay donn kon jeexagul sëy bi jeexagul moo tax nag comme que sëy gi jeexagul beneen góor sañu fa ñëw kon deng yow yaa ko war a dundal ba idda mot dégg waaw waaye fase jigéen rek acca gaawal jigil sa bagage demal mu dem du hmm? noonu de walla ndaw si itam moom itam man kay fase nga ma du ma fi toog hmm? du ma fi toog lan laay doy sa kër am naa sa sama kër baay am naa kër baay du noonu rek moom buub bagage am dem déedéet na toog ñu toog ci néegam ba idda wu foofu ba iddam jeex loolu mooy sharia xam nga lees yàlla jublu mun na am fes fase nga ko da nga mer te bëggante ngeen mu ngi foofu ci néegam su fekkee digg jigéen ji jógee la day bàyyi ba kii balaa idda bi jeex mu commencé waa léttu ba mu rafet ah teg ay ay ay tey baas boo xam ne maari day ngoon gi mu romb la ah fekk nga nga nga yaa ngi yaa ngi tëdd ci ëtt kër gi hmm? dem ci bi buntu kër gi del siwaat del siwaat ak ak ak ah sa xel del siwaat gisoo loolu yow ah ah kay su la neex nga bokk ne sa jabar la de it dëgg matul de sa jabar la de kii xeeñe parfum ah solo ba jek jasineer wala sen eh, papalman yi ki ah di jagar jaagari mu to rek yow nga ne ma man kat lima man deug deug deug deug dama damaa deug deug dama damaa ya su ko defé defé nga meron rek mu mer nee nañu waa defa dafa ta fase jabar yi waa ji de fois fiir fiir fiir fiir fiir te dabar jabar ji dafa rafet ñu xuloo rek mu fase jabar ji jabar ji nag commencé di dajale bagage di dajale bagage am di yéenu mu ne ko kaay ma yen la ndaw si ne ko déedéet ko fase kay sa yoon ci moom bàyyi ko bàyyi ma rek mën naa ma yéenu sama sama bagage mu xool ko ba mu yàgg mu ne ko cim ndaw caga bu gaaw jar ah <laughs> ndaw caga bu gaaw jar xam ne kooku moom fase na waaye xel mi <laughs> xel bi génn soo fase ko bëgg di laa coono dikkal na la bàyyi ki nga ba mën a bàyyi dafa baax nit war na loo xeex xeex seetal ndax ndaw si mun nga ko ba wal walla ndaw si seetal sa jëkkër ji ndax mën nga ko ba loo xeex xeex desal ci sinon da jël sa décision ba pare toppaat ci ginnaaw di daw te loolu am na lu ko gën moo tax Moustapha Guèye dafa doon wax ne bàyyi leen di fowe li ngeen bëgg bàyyi leen di fowe li nga sa sëy ba sëy bi deñ nga toppaat fu nekk nga jonkan fa ku nekk nga kalami ku nekk nga yónni ko ku nekk jaru ko soo xamee mënoo ko kii mun nga muñ toog hmm? du moo gën moo gën moo gën wàccu ba pare moo gën wàccu ba pare di ko lekkaat Hmm? kii dafa bon dafa mën a doxaan dafa mën tey mënoo ko baa doo tëj doo doo ko téye nag ak ndoxaanam ak nayam ak léppam ak sikkam kon mënoo ko bàyyi téye ko ak ay sikkam du moo gën de waaye fase ko ba pare nag fu mu taxaw nga taxaw foofu wala suy dem nga ko yuurlu ko yuurlu dem ko beneen beneen koñ taxaw di di ko séentu ah loolu lool loolu loolu loolu loolu jaaduwul dégg nga kon wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan nañ jo def ndénkaane li azwajihim mataan ila al xawli dégg nga xayri ixraajin ñu bañ génn walla génne leen bu leen leen génne ci seen néeg seen dëkkuwaay yi fa in xaraj na suñ génne seen bopp nag falaa junaa aleykum yéen itam seen bakkar amu ci yéen fii ma faal na fi am fu seen walla suñ génne nag suñ demee bi demee ba génn nag ma ba seen idda jeex bakkaar amul ci ñoom fii ma faal na fi anfusihin min maarufin wallahu yàlla azizun aji not la ci nguuram waaye xakimun aji teral atte fi mu yàlla tëdd yàlla ne walil mutallaq walil mutallaqaati walil mutallaqaati ñeel na jigéen ñi ñu fase yi mataa un yóbbal bil maaruf ci njëkk xaqan loolu yey na alal muttaqina ci way ragal yàlla yi kadalika naka noonu yubayyinu llahu de yàlla di birale lakum ñee leen ayaatihi ay aayam la àllakum ngir yéen taaqiloon ngeen am xel yàlla ne alam tara ndax gisoo istifhaamu taajub dégg ndax gisoo ila ladina jëm ci gaa yi ngeen xam ne xaraju génn nañu min di yéerim seen kër yi waxumu ñoom ulufun ay ay ay ay ay junni junni lañu xasaral mawti ngir ragal dee dégg dafa am benn dëkk balaa dafa am comme mbas mi coronavirus bii nit ñi di dee comme ay weñ ñu daw nag génn dëkk bi bi ñuy génn dëkk bi itam ulufun ay junni junni lañu woon wax nañu ne arbaatun aw samaniyatun aw asharat nee nañu ñeent junni lañu woon am nañu déedéet juróom-ñetti junni lañu woon am na ñu wax ne fukki junni lañu woon am na ñu wax ne fanweeri junni la woon am ñeent fukki junni lañu woon am na ñu wax ne sabuuna alfan juróom-ñaari fukki junni lañu ñu woon ñu génn dëkk bi ngir mbas am na ci dëkk bi ñu génn dëkk bi di daw dégg nga ñooñ bani israil la woon waqaa tabbina attaawuuna feebar bi ñuy wax taawun bi bilaadihim ci seen dëkk fa farru ñu daal di daw nag kon li ñu waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam su feebar amee ci dëkk bu ñu génn dëkk bi di daw suñu déggee feneen feebar ci beneen dëkk bu ñu fa dem soo demee foofu nga yóbbu foofu feebar wala soo demee ci dëkk boobu te feebar bi foofu la ne ñu wàll feebar hmm? ñii nag après feebar bi dafa am ci dëkk bi ñu ndaw yàlla ne fa qaal lahumullahu yàlla ne leen ndegam dee ngeen di daw fa muutu na ngeen dee ñoom ñépp ñu dee topp ginnaaw googu su ma ahyaahum topp yàlla dëkkil leen dégg nga baada samaaniyati ayaamin ginnaaw euh, une semaine mooy euh, une semaine waaw juróom-ñetti fukki juróom juróom-ñetti fan aw aksar wàllu lu gën a bëri waaye bi du'a seen yonente moo leen ñaanal mooy xasqiil moo leen ñaanal dégg fu fa aasu ginnaaw googu fa aasu bi mu leen ñaanale ba yàlla dëkki leen dëkkil leen fa aasu dund nañu daxaran dir alehim ci ñoom asarul mawti dégg nekk na ci ñoom asarul mawti jeexiti de laa yalbasuuna thawban illa ada kal kafni suñu demee sole sole mbaxana mbaxana bi soppeeku càngaay suñu solee jasineer mba ki wàll wàll wàllu cuub mu soppeeku càngaay dund nañu ay at yu bari jeexitu dee googu nekk ci ñoom lu ñu sol affaire bi soppeeku càngaay loolu nag sax na ci ñoom ba ci sa seen sët yi inna allah yàlla laahu fadlin waaye bërëm ngëneel la alal naa si ci nit ñi dégg nga walakin li fi ne aktharuhum li gën a bare ci nit ñi dégg nga waa màkk laa yashkuruuna duñu sant xéewal yàlla yàlla ne wa qaatiluhu na ngeen xeex fi sabilillahi ci kawel diine yàlla wa aalamu na ngeen xam an allah yàlla samiun aji dégg la li aqwaalikum seen wax waaye alimun aji xam la bi ahwaalikum seen mbir fa yujaasikum bihi man za allazi ana kan allazi mooy ki nga xam ne yuqridu llah dafay lebal yàlla ardan xasanan bor bu rafet bi infaqi mali fi sabilillahi kan mooy jël alalam dépensé ko ci sabilillahi dégg bi ko yéeféer yi déggee dañuy wax ne kon ni yàlla ndekke amul dara inna laa faqirun wa nahnu aghniyaa yàlla ndekke amul dara parce que su amoon dara du leb bi yàlla ne man zal lazi yuqridu llaha qarda ana kan ci yéen koo xam ne dafay yàlla lebal yàlla bor bu rafet ñu ne yàlla kon kon yàlla ndóol la su amoon alal kon duñu leb yàlla ne kan moo mooy lebal bor bu bor bu rafet nga dépenser ci sa alal lillah ngir yàlla azza wa jal an dii bi qalbin ci bi nga koy dépensé so xol nangu na soo ko defee fa yudaa'ifuhu yàlla dina ko fulal lahu ñeel ko adaafan ful kasiran bu bare wallaahu yàlla yaqbidu mooy mooy nëb a risque wërsëg aman yashaa ki mu soob moom moo koy wa yabsud moom mooy tàllal liman yashaa ku mu soob wa ilayhi ci moom turjauna lañ leen di delloo kon ñu teg foofu suñu baaraam ba ëllëg incha allah ci waxtu wi ñu delluwaat ci tafsir bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla nañ yàlla nangul koor euh, nangul ñu suñu jaamu yàlla yëpp lépp loo ñu ci baax euh, yàlla lépp lu ci ñu ci juum yàlla nañ ko yàlla jéggal euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.